internet Dakar Buzz maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar bu baax a baax màggal oblige ñu ngi fi nga xam ne moo di Touba euh, plus précisément Daaru Minam di kër Jawriñ Mbàkke yu fay waaye nag bu ñu waxee loolu da xam ne màggal kuy murit ku julit ku ñëpp dañu fi dajaloo daal di santale Cheikh Ahmadou Bamba yàlla parce que moo ko wax ñëw leen ngeen santale borom bi subhanahu wa taala ah waaye nag euh, bernde jàngum xasida jàngum alxuraan waaye nag ñi nga xam ne artistes yi dañ leen a ràññee ci màggal gi jotee lépp lu ñu bàyyi woon dañu koy <clears throat> lu ñu jàppoon dañu koy bàyyi première safar gi jot na rek ñoom dañu koy bàyyi ñaar ñi ma deneen nag ku leen xam di nga leen xam ne ci yoonu murit ku leen xam di nga leen xam ci yoonu Cheikh Modou Bamba waaye ku leen xam xam leen ci diine ba tax na bi safar gi jubee rek bokk na ci artistes yi njëkk a def tub génn ko mu nekk ci boo xam ne def na taba sama xel day dem ci Tarba Mbaye ah, sama xel day demaat ci El kayita ñoom laa fekk tey Touba gannaaw euh, fekk leen ci liggéey gu méttee métti parce que ñoom bu jël artiste bi teg fële doonu taalibe ma fekk leen ñuy liggéey ñii di jàpp ñii di di nekk ci waañ bi ñi nekk ci ma ne waxtaan euh, Tarba ak El maa ngi leen di nuyu Xaadim Tarba maa ngi lay siyaar. waaw Big Taf maa ngi lay bëggee di la siyaar bu baax a baax euh, di siyaar mbokk internet euh, Dakar Buzz yi toog di yëpp di siyaar mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp ci màggal gi. ñaan lépp lu ñu fi jaamu yàlla ak lépp lu ñu fi ñaan ak lépp luñ fi liggéeyal ku tedd ki yàlla na ko suñu boroom nangu ñaa ko fekkee ay yu bari bari bari te nag màggal gi nekk màggal bu spécial tamit euh, ma kontaan ci trop sama frère jumeau ni ma tey daal Touba du ma dal fenn damay ñëw ba sa kër. dal ak yow ñu ànd liggéeyal Serigne Touba. Ah, alors frère jumeau El Hadj Keita maa ngi lay siyaare Murit na def. ñoo ngi siyaar Big Taf ah, di la bëggee di bëggee képp kuy bëggee Dakar Buzz di wax ah, déwénati waaw fekkee déwén yàlla nañ ko fekkee ati at màggalub jàmm di ko ñaaral mbokk taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp ndax fu waay nekk rek dem fi màggal ren nag ma ne sama xarit moom lay dalal si muy Tarba ma ñëw ren këram laa dal. waaw macha allah. kon kon yow laa déggal micro yow laa njëkk lu pourquoi euh, bu leen duggee maanaam commencé dugg Touba rek mbubbu artiste bi ngeen koy jël teg fële indi taalibe bi boo leen ñëwee kenn du leen xàmmee ci liggéey gi ngeen di nekk muy métti ngeen ci nekk naaj bi tàng ngeen ciy nekk gannaaw murit loolu la ñu baaxee waaye yéen itam dañ leen a xàmmee toujours euh, naajee yeewu ndax liggéey gu mett tey bu fekk leen Touba rek ci liggéey gu waaw loolu nag suñu borom teel ñu cee dimbali ba ñu nekkee ñun dañoo ñun avant sax ñuy dugg ci musique ay taalibe lañu dañ ñoo xam ci yoon bi ñu nekk ay taalibe daan missionné kon bu ñu duggee ci musique bi day day mel ni maanaam ñu ngi ci waar bi waaw parce que tamit euh, liggéeyal yàlla la ndax Serigne Touba daal liggéeyal suñu borom ba yàlla fay ko tey bés bii muy màggal kon 18 safar képp ku nekk ci àdduna war nga ko fete ndax fierte la ndax Serigne Touba ba muy dem demalul pour pour jaam xirxam jami alwara la ñu wax waaw moom pour jaam yëpp la moo tax jaam yëpp a war a feete moo tax tey boo ñu fekkee tubaa dañuy dindi artiste bi teg fële def taalibe dugg ci waañ mi joxe gaay yi xewlu berndeel gaay waaw kay. alors Talba même question parce que yow moom euh, ñu bari xamee nañ la Baye Fall moo tax jumeau bi sax dafa yomb ah yéen ñaar ngeen ñëw Touba euh, jëlu artiste bi teg fële indi taalibe waaw xam nga euh, artiste moom euh, mbubb la rek euh, te looy sol di ko di ko di ko di ko liggéeyee parce que ñun li ñuy def muy musique suñu métier la buñ ci nekkee dañ koy jox nag li mu war li ci war lépp def ko comme ni mu waree mais yàqaluñu dara ci sunu taalibe yàqaluñu dara tamit ci sunu ngëm-ngëm ndax ñun dañoo juddu ci ci ci ci diine lislaam juddu ci ci tarixa murit euh, gëm sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra bëgg doon Baay Faal ndem doonaguñ ko euh, kon loolu yàqu sunu liggéey loolu yàquluñ ci dara euh, muy Tuubaa bu ñu ñëwee dañuy dañuy sumi suñuy yëre takk laxasaay liggéey bernde gan yi ndax loolu ñun la war ndax dañuy dalal ay ay gan di dal di dalal mbokk jullit yeeg non parce que yéen dañ leen war di dalal mais yéen da ngeen teel a dalal gan waaw loolu mooy yoon parce que ñun loolu lañ xam te balaa ñoo gën a ma am lu ñu neex jël ay ay ay ay ay ñam ah jox ko jox ko mbokk jullit yeeg mbokk taalibe yi ak ñi màggal si pour gën a jëmal bisu ku tedd kii yaakaar naa ne ñu bu ñu gisee ñu def loolu rek eh, day gën a yomb pour ñeneen ñi tamit eh, macha allah roy ci loolu parce que quoi qu'on puisse dire ay porteurs de voix lañ te tamit eh, bu dee benn ñaar nit sax dinañu ñu ngi ñuy roy ci lu baax. xam nga moo tax bu ñu ñëwee dañuy summi suñu mbubu artiste doon taalibe doon Baye Fall takkal laxasaay El ñu bëri nag dañ doon wax seen duo ku la laaj ne la yaag sa kañ ngeen def duo ku laaj tarba ñu ne yaag sa jumeau kañ ngeen di def duo ngeen bàyyi ba safar gi jub nag ngeen ngeen def duo bu pourquoi pourquoi ci jamono ak safar waaw parce que moom laa lay wax sànq ay taalibe lañu te ku tedd ki moo nu boole moo tax mënuñu woy leneen mënu nañ génn feneen mënu nañ woy mbëggeel wala ñu may ba ci àdduna tem mais dañu ne pourquoi pas ñu way Serigne Touba moom mi demoon géej ba daanaka sax ci biiru way bi maa ngi ko naan yow man Ahmadou yaakaar yow xaadim ñu tuddee la ko kon bu ñu àndee di ko way war naa mën a ne ndax du ñu naxe mbaay keroog bu saa taxawee kon maanaam maa ngi moom ah, ndox ah, dégg euh, soow ak ak suukar la ah, waaw yëngal naan foofa toj. alors euh, mooy li ma wax rek parce que yéen ñaar seen duo toujours les gens demandaient que ni euh, Tarba ak El jumeau bi ñuy woote war nañu mën a def duo gars yi di xaar loolu di xaar loolu ba safar gi jub si. ñu jekki jékki rek gis ngeen def seen costume cravate man je m'attendais ay ngeen woy affaire bureau def bamba classe. waaw xam nga sëñ Tuubaa du ñuy takk laxasaay rek ko bëgg sëñ tubaa euh, sëñ tubaa wàll bu nekk am na ci am na ci ay ñoñom euh, bu màggal jotee ñu nekk ci seen bureau yi ñooy jël seeni teraanga jënd ay nag jënd ay xar jëndi giléem jox ko Baay Faal jox ko Baay laxasaay ñu indil ko sëriñ bi kon sëriñ tubaa amul sens interdit fenn te sëriñ tubaa képp ku koy way euh, loo gën a rafet ak loo gën a classe yow yaa yeyoo way Serigne Touba du pas du c'est pas que dañuy takk laxasaay rek ah majjaal wara a way dañoo war a sol costume yu rafet way Serigne Touba ndax Serigne Touba moom moo yeyoo loolu moo tax euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ne sëñ bi vidéo bi nañ ci nañ ci wane beneen beneen facette bu bokkul ak euh, ni ko ni ko gars gisee macha allah mu nekk morceau boo xamante ni génn nañ ko may ko euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yëpp ci màggal gi mu doon nag morceau boo xamante ne daa neex ñëpp ñëpp bëgg morso bi ñëpp di bëggee morceau bi ah te maa moom suñu duyoo nekk na loo xamante ne ñëpp dañ ko doon xaar te plaisir la aussi ñu way Serigne Touba maa moom lépp lu ñuy lu lu produit bi ñuy njëkk def mu doon Serigne Touba loolu plaisir la woon ci man plaisir la woon aussi ci moom plaisir la aussi ci eh, eh, fans yi ak melemaan dañ ko jox te des na album incha allah ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. Eh, ñu tooñ tarba tuuti màggalu célibataire ak màggalu marié bu bu gën a neex. amul marié ak soxna si ñëwul de. Ah, waaw ah, waaw waaw màggalu célibataire ak màggalu kii lépp benn la parce que sëñ Tuubaa la ñu ñëw moom daal Ahmadu moo yor lépp waaw fi mu ne nii màggal gi moom màggalu Ahmadu la màggalu sëñ Tuubaa moo tax dama koy bàyyi mu sedd bi yoon dama koy bay bi yoon dama koy. non bii dama ko may mais bu ñu demaatee ci saayir si ma ne ko takkil jabar <laughs> alors beneen beneen bi ñu ràññee mooy euh, euh, bi ñuy bi ñuy bi ñuy ñëw ci màggal gi dañ doon wax naan Covid 19 coronavirus sëñ bi joxe ndigal parce que yéen sànq bi ma ñëwee dama leen fekk naa leen ci waañeeg yooyu masque bi euh, ngeen takk ko ah, laal gel yi ñu gis ni doon ay porteur de voix lan ngeen di yi nga xam ne. waaw na ñu jëfee ndigal parce que boo xoolee na taalu ku tedd ki sëñ mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ah. Euh, boo xoolee nataala mi rek maanaam day jàngale lu bari maski yi muy takk maanaam daanaka mooy maanaam nañu toppatoo suñu bopp nit da ngay fonk sa bopp waaw nit dangay fonk sa bopp moo tax maski yi dañ koy takk euh, gel ñu ngi koy def suñu loxo ba léegi faw ñu set parce que lépp ci set la bokk boo setee rek suñu borom mën na laa dimbali te loolu sëñ bi mu ngi ñuy jàngalaat ñun képp ku nga xam ne ñëw nga màggal ngay waay waay waay takkal sa masque def sa gel du la wàññil dara bu la yokkul du la wàññil loolu kese la loolu ñaa amoon pour wax gars yi nañ ko jëfee rek foofu toj taalibe yi bëri nañu ah euh, ku nekk ngi ñëw murit ak ku dul murit jul ak ku dul jul ñëpp ngi ñëw ci màggal gi euh, lan nga leen di digal waaw ñun jëfe ndigal rek ak bàyyi tere rek moo ñu war te Cheikh mu Mouhamadul Mountakha di xalif général ku lu murid yàlla na fa yàgg te wér ndigal li ci moom la bàyyee ko yaakaar naa ne moom moo njëkk a joxe exemple eh, jël mag sam takk ko eh, ñun interview bi sax moom moo ñu tàggaleek moom waaye macha allah eh, ñu ngi ci ndigal li bu baax a baax di ko wax tamit sunu mbokk taalibe yi koy seetaan yëpp. Euh, fépp foo mën a nekk rek takkal sa masque parce que pandémie bi euh, jeexagul ci réew mi ñu ñaan yàlla nag màggal gi yóbbu ko yàlla na ko màggal gi yóbbu mu set wicc ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ci barke borom Touba. Euh, berne yi nag xam naa ne xam naa ne gars yi depuis bi ngeen ñëwee ba léegi gars yi ñu ngi benn rek mais mbaa élage moom ñu ngi ah, ñëw léegi mu ne ma man damaa sonn damay nelaw man doxandu ba ci dibitër bi gars laalal ma ay cornet dañoo baax. ñu laal ci am lu ma ràññee ci biir kër gi lañ fekk député yi waaw kër gi xéewal yooyu yëpp ñu ngi ci biir kër gi ñu laal ci moutarde ak soble su ñorul laal ko ko mu ne man daa mel ni sonn mu woon damaa xiifoon el saa yi commencé na laa sànni de el dafa mel ni yow man damaa gis gisuma sax gëmmentu sa bët yow xamoon naa dina ma yàq maa noonu la demee nag fii moom kër gi moom tawfeex tawféex ndax jëwrin moom ñu koy char bu baax suñu jëwrin mbàkk yu fay ah di jaay ci Tarba Mbaay moom tamit euh, ñu def ci son bi bañ ci defee son bi macha allah jàppale nañu ci nañu ci bu baax a baax a baax maanaam tamit déglu na ko kontaan na ci ñu koy charaat di ko bégee bu baax suñu jëwrin moom daal kër gi daal def na fi lépp dibiteri la fi def. dibiteri la bi leen ko ci gën a garaaw mooy dañuy def nii. mooy loolu ñu naan dibi dibi ñëw non. ah kon dama dibi da nga naan dibi rek dibi ñëw. non mais dibi gi ku ci ñun fi mu ne nii dañuy neef dibi dibi ñëw. mais man est-ce que fi ma dal noonu da da ngeen ma koy mujjee jéggal ndax fii kon dañ naan dibi dibi ñëw rek damay mujjee toog. ñëwal ñu dama dénk la chambre bu baax tàllal la clim ba ba mu set sedd ñun ñu dem ci waañ wi di la berne. et puis gi tey suba la. mais tey dafa gën tey la màggal. ah waaw sëñ Tuubaa ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam rek ci kanam rek la jëm euh, soo bëggee dégg-dégg daal nit ñi sëñ Tuubaa lañ bëgg sëñ Tuubaa lañ gëm keneen ku ñuy bëgg sëñ Tuubaa tax ñu bëgg la ak wala ñuy masla ak yow waaye sëñ Tuubaa dong lañ gëm moom dong lañ bëgg teyam gu nekk nag day gàcceel démbam mais léegi euh, je pense bien parce que dama leen di bàyyi ngeen nekk ci waar bi parce que xam naa ne xam Touba moom boo leen fi ñëwee euh, jot amatul mais xam nga euh, disciples yi ñoom ak internet yi toujours bu ñu gisee ñu toog rek dafa am foo xam ne dañ leen fay bëgg a dégg mais tey dama bëgg ñu indi ñu indi Baye Fall tey daal ah laal fu ndaw rek même bu dee benn une minute deux minutes yow ak Tarba yow ak El Hadj dama naan jërëjëfate jaajëfate jërëjëfe sëriñ Touba war na ku ne Axmaduna daam sagal na noo merci beaucoup merci encore thank you sëriñ Touba war ku ne Axmaduna daam sagal na noo bu màggal gi yëgsee xël-xël gi tàmbalee ci géej gi ak ci jéeri ji wut si Tuubaa yi Mbàkke Ahmadu daam sagal na noo Ahmadu nga yaakaar Xaadim ñu tuddee la ko sunu andi di kaway war naa mën a ne ndax duñu na xembaay keroog bu saata xawee واني ملغت احمدا من اقتداء رومي ملغت احمدا من اقتداء رومي pour yàlla may na ko mu tudd Ahmada ci ay ngërëm la woote ku bëgg dim ñëwal waa dafa am foo xam ne euh, tarba bu ko yëkkatee moom may élage yow da ngay bëgg ma bëgg keneen bëgg moom xam na fi may waxee voilà. màggal gi yëpp mi ngi may bëgg a rey damay toog jékki-jékki mu ne der. waaw ah, léegi foofu nag ñu ne der. إنما مثل الوجوه في كالناسي يحنت بانلين la doit mais kontaan nañu vraiment vraiment màggal gu ni mel xam naa da ngeen koy dund parce que itam euh, màggal dafay baaxoo ñuy ñëw ñoom di leen xool parce que itam euh, bu ñu leen fekkee Ndakaaru amuñu jot ah a ngi studio matin midi soir bien bi leen leen tëj ci ci tëju leen ci kër yi ci studio bi la leen tëj donc ngeen nekk di enregistré donc tey bu ñu ñëwee Touba occasion lu ñëw xool leen ah, parce que xam naa ne ci liggéey gi laa leen fekkoon yéen leen ñu waxtaan kon dama leen di bàyyi rek euh, kontaan naa bu baax baax bàyyi leen ngeen ngeen ngeen wéyal liggéeyal Cheikh parce que moo leen fii indi itam euh, ñun itam ñu dem liggéeyal ko moom ci beneen wàll wi bëgg nañ bu baax a waaw big taf macha allah di kontaan bu baax baax ci yëg-yëg bi ak ci seetsi bi macha allah kontaan nañ ci trop ba ma la gisee tey ci sunu ëtt bi ndax euh, ñun fii lañ judd fii lañ yaroo euh, li ñuy ñëw Touba yëpp fii la ñuy nekk mu nekk sanc boo xamante ni sunu nijaay moo ko sanc fii nga xam ne famille bi yëpp ak mbokk taal bi yëpp fii la ñuy dal muy alaaji Mbàkke yu fay di jëwriñu Serigne Touba ci Ndakaaru di sunu nijaay nag di sunu xarit macha allah comme ni ko El Hadj rek barki démb rek lañ ko rendre hommage ci morceau bu ñu euh, génn ci màggal gi muy jërëjëfati mu recevoir ñu këram déglu morso bi kontaan ci teral ñu macha allah xam nga di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla bu ñettalee tamit dara ci ginnaaw ci ci ginnaaw mu yàgg fi lool. ba fekkee sunu njëriñ ñun ñëpp ci barke borom Tuubaa di kontaan bu baax a baax di ñaanal ñëpp màggalu jàmm. waaw waaw comme ni mu ko waxee bëgg nañu lool dañoo sonn waaye xam nga rek fii moom ah waa dund dee dem Touba. waaw ndax sëñ Touba rek la ñu yaakaar moom la ñu am ñu ngi bëggee ñëpp di wax màggalub jàmm yow tamit kontaan nañ sa déplacement parce que tamit euh, c'est pas évident nga ñëw màggal Touba nu mu méttee nga dang-dang ñëw fii ah, yow ñu ngi lay jaajëfal Big Taf yàlla na sa jàmm yàgg kontaan nañ ci ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm màggal ci jàmm. xam naa yéen fans yi doon di leen doon wër nag ñu ngi fii kër Jëriñ Mbàkke yu fay Daaru Minam mais damay ragal ngeen ñu sol leen ay dibi dibi dibi ba doo leen tal photo ak yeneen mais ñëw leen parce que ñoom itam dañuy bëgg yéen ñi nga xam ne da leen di bëggee ngeen ñëw tay bi pas au lieu que ngeen ñëw dikki ñoom ya ngeen ñëw ñoom ñu teral leen ci ay bernde jox leen lekk jox leen ngeen naan ba pare dañ waxtaan a yéen parce que fii dañuy dund Baye Fall gi rek Baye Fall gi la ñuy dund nagisement euh, tarbala woon ak El Hadj Keita yéen internet yi ñu ngi leen di jaajëfal aco ñu demaat ci waar wa macha allah kontaan nañ bu baax a baax ngeen jëf aca màggalu jàmm jaajëf waay mbokk yi ku ne màggal sa xel ci li muy jëkk a dem mooy berndeel bégal doomi aadama yi bégal gani xaadimu rasool yi mbokk yi boo nee berndeel sa xel fi muy dem mooy huile huile mooy diwlin bi nga xamante ni àndul ak benn cholestérol mooy diwlin bi nga xamante ni moo mën a bégal doomi aadama ci tomb bu mu mën a doon rawatina ñu jëm màggal ca dëkkub Serigne Touba ba mbokk yi huile j'adore fas yéene leen faa fekk ngeen ànd ak moom ñu berndeel gan ñi ñu ànd ak moom ñu teral doomi aadama yi huile j'adore ca Touba boo ko soxla dangay ngay woo Pape Dieng marché Ocass 77 533 87 37 wala nga woo Baye Abdou ci 77 241 81 57 sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Serigne Touba huile j'adore mooy sunu diwlin.